jërëjëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV mbégte ak contentement la ñuy am ñëw ngir fas yéene leen a jukkil li nga xamante ne bii moo gën a fës ci ëttu yéenekaay yi nga xamante ne bii dañuy bind ci euh, wàllu làmb fi ñu koy dooree rek mooy open press bi nga xamante ne bii le B52 de Mbour. mi ngi ko doon ah, amal démb fële ci Mbour géej ñu gis ah, mobilisation bu am doole bi nga xamante ne bii waa Mbour def nañ ko génn wuyu si seen doom boobu nga xamante ne bii moom mooy ah, Bombardier mais Bombardier démb li mu xamle mooy ku ko dóor ku nekk di nga ko abal yet wi mu fayew slogan bu bees boobu la génnee gannaaw boo mu génnee woon slogan ci digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy Balla Gaye tudde woon ko jeexaat foofu doom delloo fa sab loxo mu mel ni digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy Eumeu Sène slogan bi mu génnee mooy que ku ko dóor ku nekk di nga ko abal yet bi mu daal di mu daal di fayu ñu ne ko est-ce que pare nga xeex ak ki nga xamante ne bii moom mooy Eumeu Sène mu ne moom li ko li mu li ko gënal sax mooy jàpp Eumeu seen dóor ko mu daanu loolu la wax ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, biir journal bi wante ki nga xamante ne bii moom mooy Sawru Euh, di manager wala di entraîneur bu ñu ràññee moom li mu yëgle moom mooy euh, Eumeu seen nekkut mbër ba nga xamante ni bii dañu koy saax saaxee dangay ñëw rek jaar ci kawam jàll daal di koy saax saaxee euh, def ko ni nga ko bëggee Sewru Fall daal loolu la xam xamle ci li nga xamante ne bii moom mooy biir journal bi bu ñu jógee foofu dem ci combat bi war a am incha allah le 19 juin ci diggante Sokh ak Franc. incha allah nekk combat ba nga xamante ne bii amateur yi ñu ngi koy xaar nekk combat ba nga xamante ne bii am combat amateur la wante nekk combat bu neex tamit suñu làmb dafa ñëw ak ñun ci palmarèsu ki nga xamante ne bii mooy Franc Ndiago ba la nekk fële ca Parcelles Assainies nee na Franc def na 10 combats def na 10 victoire ci làmb ji déggagul muñal nee na Franc daan na ki nga xamante ne bii moom mooy géej mbambulaan daan na jara daan ki nga xamante ne bii moom mooy Rems daan ki nga xamante ne bii mooy Serigne Ndiaye numéro 2 daan ki nga xamante ne bii moom mooy Caatu Yoof daan Njaga Doole daan Mbaytin numéro 2 daan Ngeer bu Jap daan Bébé Saloum ki mu mujjee daan mooy Tyson 2 bi nga xamante ne bii moo nekk fële ci taay sënga di mbër bu naqaree bëreel mbër bu am doole mbër bu am gannaaw ki nga xamante ne bii moom mooy Franc jëflante na ak moom daan ko jël bu amul benn werante bu ñu jógee foofu ñu dem ci combat bi nga xamante ne bii fi mu toll nii tamit mën nañoo wax ne woy wi daanu na aaya ba daanu na diggante armée ak mbay guy gi incha allah mois de juillet la war a am Kajoor production moo taxawal boobu boobule combat war a dox ci diggante mbay guy gi ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, armée mbay guy gi ñu gis ko ci defet la jóge ci digganteem ak Zarko armée jóge ci ñaari defet moom tamit mu nekk combat ba nga xamante ne bi suñu làmb nee na ñoom ñaar kenn amu ci droit def erreur parce que ñoom ñaar ci li ñu jógee moom moo waral euh, kenn amu ci droit def heureur mais làmb daal loo ci mën di dégg ak loo mën di gis ñaari mbër bu ñuy bëri il faut am ko daanu loola nag mu ngi suñu kanam ñu yónni yàgg rek te xam ne yàgg bàyyiwul dara ñu yow ci soog bi nga xamante ne bii tamit mën nanoo wax ne taxaw na petit production moo taxawal boobu lay soog aada Fass xale bi nekk fas bennoo mën a bëre am gannaaw te bu jógee waa fas yëpp topp ko kombaam ak ki nga xamante ne bii mooy Coly Faye numéro 2 taxaw na nekk combat jànq nekk combat espoir nekk combat ba nga xamante ne bii euh, suñu làmb nee na euh, combat bu tàng jër lay doon cin luy baax lay doon ruq bu sedd mënu caa am petit petit production moo taxawal boobule le combat mu nar a nekk combat bu neex incha allah bu ci yàlla àndee tamit wante champion bii dëkk Niger nekk nekk ancien champion ñu naan ko Balla naa mi ngi fii ci Sénégal nee na moom dafa dafa dafa ñëw noppalu si fii ci Sénégal moom euh, champion CEDEAO la woon euh, nee na xam na Yékini xam na ki nga xamante ne bii tamit moom mooy Eumeu Sène ñu ne ko. ko noo gisee bo noo gisee ki nga xamante ne bii moom mooy Eumeu seen mun a Eumeu seen góor gu dëgër la ndax boobu léegi mi ngi ci mi ngi ci làmb ji te moom yaakaaroon ne ne bàyyi na li nga xamante ne bii moom mooy làmb mais nee na nag déggante wut ndax euh, xam na ne Eumeu Sène day préparer combat ñu ne ko déggante nga ki nga xamante ne bii mooy Yékini mun a waaw déggante nañu par téléphone ba kale na li nga xamante ne bii mooy rendez-vous fas ne gisee nee na moom bëgg naa gisanteeg Yékini toog waxtaan ak moom fii ci Sénégal bala moo dellu ca Niger mais nee na daal xam na ne Sénégal réewu teraanga la réewu jàmm la te réew la ma nga xamante ne bii macha allah euh, gis na fi li nga xamante ne bii moom mooy boppam bu ñu jógee foofu ñu dem Jurbel xam ngeen ne dimanche passé Sidi Diakhaté dafa tëggoon lamb combat spécial ba doon dox ci diggante Bonis ak ki nga xamante ne bii moom mooy bébé la bébé Balla nag day contesté jël bi ko bonis daan ba tax na déposé na li nga xamante ne bii moom mooy recours foofu ci table CRG bu Jurbel ndax euh, nee na jël bi nga jël bi nga xamante ne bii wax nañu ne moom la ko bonis daan àndu ci tey àndu ci ëllëg lànk na ba tëdd ca naaj wa loolu moom moo tax mu déposé li nga xamante ne bii moom mooy recours foofu ci table CRG bi nga xamante ne bii moo nekk foofu ca fu moo nekk foofu ca Jurbel bu ñu jógee foofu ñu seeti Pape Silla moom mi nga xamante ne bii moom mooy président écrit Mbour Bombardier nee na ñoom seen objectif nekkul ne mooy daan am seen kese wante seen objectif seen bëgg-bëgg mooy. jëlaat li nga xamante ne bii mooy troisième fois couronne roi du roi des arènes lu kenn mësula def ci Sénégal ñoom ñu def ko mooy jël roi des arènes li nga xamante ne bii moom mooy ñetti yoon ñoom ci loolu lañ nekk nee nañ xam nañ li leen koy may te it ñi ngi ci yoon bi incha allah ñi ngi ci liggéey guddi ak li nga xamante ne bii moom mooy moom mooy moom mooy bëccëg bu ñu jógee foofu ñu dem seeti euh, ñaari mbër yi nga xamante ne bii amateurs yi bëgg nañ seen combat taxaw ndax ñaari champion lañu. te ci làmb ji lañu ñu bokk mooy ki nga xamante ne bii moom mooy Modou Anta ak Aliou Seye 2 amateurs yi nee nañ bëgg nañ boobule combat gannaaw ba Modou Anta defee saison blanche année bala jàll année ba ca topp mu daal di bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy Diène Kaïré Diène kayre daan ko Aliou Seye 2 tamit nekk mbër ma nga xam ne mi ngi def ay preuve am mu ngi prouve mu ngi wane boppam ci làmb te mu ngi ci dina dynamique victoire bu suma juumul jos la mu jëbëreel euh, daan ko mu nekk ñoom ñoom ñaar daal amateurs yi nee nañ soxla nañu ñoom ñaar ñu laale soxla nañu ñoom ñaar ñu bëree ci saison bi nga xamante ne bii moom la ñu moom la ñu nekk mu nar a nekk combat bu neex bu taxawee ndax ñoom ñaar ay gaynde lan ay champion lan te seen combat macha allah ñëpp xam na ne euh, bu ñu bëree euh, dana neex mi ngi noonu mbokk yi loolu moo nekk li nga xamante ne bii moom lañ leen andiloon ci ëtt yi nga xamante ne bi ñooy bind ci ci wàllu làmb ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal sama caméraman Oumou Laye euh, moom mi nga xamante ne bii moo nekk ci caméra bi maa ngi koy jaajëfal di kontaan ci moom macha allah liggéey bi rafet na wante di jaajëfal tamit sama xarit. sama soppee sama sëriñ kooku mooy sëriñ Abdoulaye Souare borom def léegi gis léegi macha allah nga xamante ne bii nee naa ko faj yittey doomu aadama yi kese la fi nekkee képp ku jàq mbaa nga jaaxle ak jàngoro bépp boo mën di am boo fa demee bu la ñaanalee di nga tàggoo ak moom sëriñ Abdoulaye Souare ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax. yàlla na sa jàmm yàgg ñu ngi lay ñaanal jàmm ak salaam di la bëggee di la jaajëfal bu jaas di la jaajëfal saa su ne merci beaucoup di leen dig dajee incha allah suba ak jàmm ci beneen revide de ren fii ci Leewtoo TV.